mar marhaban gréew liggéeykat ñuy yëngu ci wàllum paj mi doon amal ni ki démb moom la mbooleem yéen kayi xëyee ni ki tey jilee ay syndicat yu bëri yu yëngu ci wàllum sante ñoo daal di amalu bu gréew ci alxamis gi rek ngir wane seeni fippu ginnaaw bu ñu tegee loxo ñeent ci ay sage femme ci hôpital Amadou Sakhir mbay bu Louga ginnaaw faatuk astu soxna mi doon jéem a mucc Sud Quotidien nañu alxamis démb gi mën na koo méngalek alxamis ji leen dem kiris ci biir bërëbu fajukaay yi di maanaam jeudi noir li ko waral moo di agent santé yi ñoo daal di gàllankoral wàllum paj mi bëccëg bi ñu taxaw temm daal di simi seen ay blouse ne duñu laal benn way wopp budul ab urgence loole nag tax bi askan wi daal di lool bay futtu libération ne ñu bii la jafe-jafe bu askan wi daj ni kii dem ba moytu dafay wëyandi ndaxte ginnaaw bu yi lankee ni kii dem faj way wopp yi ci bërëbu fajukaayu public yi ni ki tey jile ci suba pharmacien privé yi ñoo fas yéene soobu ci ab grève tëj ràpp seen yooyu lay pharmacie doore ko ci Ndakaaru jaare ko ci Tambacounda Kolda Saint-Louis Kaolack Kaffrine Koungheul Diourbel Ziguinchor ak ci yeneen ville ni ki démb lépp la agent santé yi daal di gàllankooral paj mi bu ñu sukkandikoo ci critique Témoin Quotidien dikk ak ñun ci maire bu askan wi daal di maire service santé yi suñu naatango ne benn komba képp moo war jamono jile tembe moo di fexe ba indi bu jubbanti ci ni système de santé gi di doxee fii ci Sénégal ngir musiba ba kumba bu mel ni bu am ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga bañ a amati ba faw yéen kay Le Quotidien moom ab taxaw seetlu lay def jëmale ko ci biile grève ndax nag suñu naataango yi ñu ngi xamle ni léegi moom fii ci Sénégal wàllum corporatisme di maanaam ñu ànd ci ku laal kenn si seen i ñooñ ñoom ñëpp ñoo jógandoo taxaw fas yéene jàmmaarloo ji loolee sax waral yéen kaay bi jàpp ne kon wàllum corporatisme boobee moom la ñu bëgg a defee bouclier di maanaam lu ñuy aaree ay nit ngir ñu mën a rëcc ci justice gi élection législative yi ñuy dégmal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet daal dina yittali itam yéeni kaay yi l'info ne njiital réew Sénégal ba woon maître Abdoulaye Wade daa dinay taxawal ab directoire national u mi nga xamante ne ay député ak ñu bokk ci secrétariat national parti ba ci ne enquête moom si jojule jamono mu ngi xam le ni président Macky Sall mu nga ci ay calcul di nas ay pexe jëmale ko ci élection législative yi laas yéeni kaay yi xëyee mafia kàcc-kàcc sampub laaj ne waaw seen doxalin ga ndaxam mën nañ la kuréel gu maanaam réseaux sociaux yi tey yëkk itam lu mel ni xamee président Macky Sall ak yi àndandooma yéene kaayu laas ne bu dee ñenn ñi jàpp nañ ne bii la kuréelu mafia kàcc-kàcc warees nañ koo rafetlu bu baax a baax ci jamono jooju am na ñi nga xamante ne jàpp nañu ne doxalinam teguut ci yoon te loolee mënees naa jur ay musiba Walf Fadjri quotidien moom mu ngi artu jëmale ko ci ab xiif mi yoot réew mi di Sénégal suñu naatango yi nañu lu ñuy dund ci réew mi jamono julee tembe sori wut ak crise mi ñu dund woon ci Sénégal ci atum 2008 ndaxte ci at boobee réew mi dafa jànkonte woon ki jafe-jafe yu tar jëmale ko ci wàllum koom ay denrée di way jëfandiko yi nga xamante ne tegoon leen gët dafa doon lu jafe lool te mel na ni fu mu toll ni loolee moo tàmbale am ci réew mi waaye dalal xelu askan wi di xamle ni li ñeel ñàkkum carburant bi ñu tiit ñaari ci ay bateau daar nañ yegsi ci ndakaaru loole nag lu muy firndeel bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yu fësal kàddu yu tukkee ci jëwriñ bu ñu dënk wàllum pétrole ak énergie di Sophie Gladima moo di ne dawalkatu woto yi mënees nañoo dalal seeni xel Sénégal daal dinay am carburant ju mat sëkk bi nga xamante ne ñëpp ñu ko soxla mënees nañ cey jot jàngeen jëf